mais ñun par rapport ak ci euh, bi jalis bi ñun ñooy gérer maladie daal manière dundee maladie ak euh, en fait mën nañu wax ne presque ñun ak maladie euh, famille lañ quoi parce que maladie tous les deux jours dañuy ñëw dialyser delluwaat seen kër noonu la ñuy dundee ak ñoom bon presque li ñu passé ak ñoom mu ëpp fopp li ñu passé ak seen famille. waaw ñu demee gis ni feebar bi xaw na euh, sonal trop askan wi fii nii est que loolu nag booy parfois doo ak yéen malade mu nag mën na xarit sa xolal waaw des fois day day am parce que xam rek malaat bi moom nit la comme yow c'est-à-dire euh, li ngay dund moom lay dund te bu amoon la ko gënal day wér comme yow mais des fois nga gis ci cas yoo xam ne yow tu di ko tey boo nekkoon ci place malade bi li malade bi ressentir moom ngay ressentir loolu la ci am. tout le lay demee quoi. li ngay passé ak ñoom bari na boo kon si waat que ni yow vie de famille sa kër li nga fay nekk bariwul waa si ëpp apparemment presque tous les deux jours cest à boo liggéeyee tey suba doo liggéey noonu lay demee quoi tout le temps yaa ngi ne si hôpital bi de 6 heures 5 heures du matin jusqu'à 16 heures 17 heures nga wàcc. bon en général dañuy jël matin bi dañuy jël première heure bi. à partir de 5 heures 6 heures jël première heure ça dañuy def 4 heures de temps bu ñu génnee beneen équipe bi ñëwaat comme nii ñu defaat 4 heures de temps génn après nag euh, suñu paree ñun ñu ranger bagages yi stériliser machines yi après ñu tamit ñu ñibbi. semaine bi yëpp lay nekk. waaw semaine bi yëpp lay nekk quoi du lundi jusqu'à samedi mais dimanche bi moom du job quoi noonu lay demee. waaw comme ni ngeen ko gisee nii waaw. bi ngeen ko gisee ni moom lañ koy branché ni ñaari fil lay doon benn bi moom mooy doon artère bi rouge bi mooy doon artère bi bleu bi moom mooy doon veineuse bi c'est-à-dire bi moom mooy xëcci sang bi bu xëccee sang bi jaarale ko ci machine bi boo xoolee ni machine bi day pompe bi moo nekk ni day jaar ci pompe bi ñëw ci rein bi rein bi li muy joué mooy maanaam moom mooy raxas deret bi mooy raxas deret bi su ko raxasee ba pare mu jaaraat ci veineuse bi dugaat malade bi noonu lay quoi léegi boo xoolee ci machine bi malade bi day am benn poids poids de base moom poids sec su comme par exemple ni tey malade bu fekkee poids de sec euh, cinquante kilos la su ñëwee li cinquante kilos yi loolu lañ par exemple su fekkente ne cinquante et un kilos la indi dañuy euh, cinquante et moins cinquante dans ce cas moom lañ koy génneel ni malade indi un kilo cinquante moom lay jënd waaw ci biir quatre de temps yi boo xoolee fii nii quatre heures de temps yi malaat bi day génne un kilo cinquante boo xoolee ni instant bi malade bi dese na trente cinq minutes waaw ci biir trente cinq minutes yi zéro virgule trente moom moo génnagul ci machine bi léegi nag loolu dañ koy topp topp ko topp ko ba temps bi jeex temps bi normalement mi ngi wara jeex 16 h 13 minutes. loolu la war jeex quoi apparemment 4 heures de temps lay def. waaw maximum bi 4 heures de temps lay def su ñëwé def 4 heures de temps tok teud ni su jeexé ñu arrêté machine bi moom day demee quoi. kaddu mu ci yi lan yan gën conseil ngay jox askan wi pour lu melni ni na torop 4 heures de temps ngay teud ko ci ci machine da lolu mën na nekk ñaata séance lay nekk wala première séance lay def. ça dire semaine bi day ñëw lundi. su ñëwee lundi def 4 heures de temps léegi day reposé wu mardi ñëw mercredi su reposé woo su ñëwee mercredi reposé jeudi ñëw vendredi léegi vendredi ba dialysé lundi lay dialysaat malade noonu lay defee beneen groupe bi comme demee day amaat beneen groupe boo xam ne ñooy ñëwaat ñoom tamit noonu la ñuy def noonu lay demee quoi. Hmm. chaque jour 7 patients 7 euh, chaque jour euh, patients sont biir patients local technique bi a une, une chambre où il patient au total ils donnent 8 patients. patients par jour matin bi soir ils nga 8 patients cours donnent 16 patients par jour quoi. man Mbacke laa jóge mais avant may nekk mbaake damaa demoon Dakar doon fay ba ñu woo ma Matam ma jóge Matam ñëw fii Touba bi ñuy bëgg a korité bi ñuy bëgg kii gàmmu lañ ma woo fii ma am fi place ñëw fii léegi di jalis avant may am place nag dama doon fay waaw dama doon fay science boo def di nga fay fukki junne ak ñett ak paas taxi waa ak jënd say garab ak say ordonnance ak analyse yeeg yëpp danga koy def léegi nag lii gratuite la fayu ñu mais ba tey da ngay jënd say ordonnance jënd say pikiir jënd say garab ak paas bi ngay paas di dem ak di ñëw ndax man Mbàkke laa dëkk damay dugg ñaari oto soog di ñëw fii waaw. feebar bi léegi mi bëgg am ak man ñetti at waaw. nee nag metti na lool. ah garaaw sant yàlla rek la ngay dem ba da ngay miin commencement bi nag moom boo xamul lay dal da ngay sonn mais boo demee ba xam li lay dal xam li lay faj. yaa ngi sant bu baax parce que léegi maa ngi sant bu baax damay dox samay activité bu baax lu ma bëgg a dox dama koy dox bu sama heure faju jotee rek mu ñëw faju sant yàlla rek. léegi ne paj mi xaw naa seer dem beeg dikk bi yooyu yëpp lan ngay wax état bi pour mu gën cee teg. gën cee jàpp xanaa mu gën a jàpp ci garab yi rek ak analyse yeeg yooyu rek mu gën comme ni mu jàppee ci lii rek mu gën cee jàppaat bu baax a baax a baax dimbaleñ ci garab yi. ak analyse yak yoy yep parce que lolou lepp dafa seer il faut nga diko def parce que boy faju mom li lay wérloo rek mom ngay mom ngay mom ngay bëgg ba paré piqûre yi dafa cher piqûre yi ñuy jënd dafa cher trop waaw trop waaw. jox askan yi nga xamné nak nag jotaguñ ci am feebar bi la gu len pour ñu gën ko xana ñu gëna a moytu rek liñ len di téré surtout maalu niin lu bëri baaxul ak lu bëri ki graisse nonu dañ koy téré loolu lu baaxu ci wax dëgg yalla lu bëri graisse mom baaxu ci ak tamit bo amé tension nga di ko contrôler bu baax parce que tension bu bon sax mën naa indi feebar bi waaw ngay toppatoo rek sa yaram bu baax liñ da wax nga di ko am na lekk yu gudd yu bëri yoo xam ne guddi waroo koy lekk ngay lekk lu oyof te nga wàññi diw bu baax a baax wàññi saf-saf yi bu baax a baax loolu daal defe naa boo ko defee bu yàlla indee jàmm di nga am jàmm loolu lépp mën yàlla mën na laa aar ci feebar bi daal ba doo ko amee daal parce que feebar bi moom metti na trop kum dalul moom yéene wuñ la mu dal ñum dal rek suñ sañoon ci ñun rek lay yem mais nag yàlla baax na